mbokki jullit yi mbokki talibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ahlan wa sahlan marhaban bikum asalaamaaleykum euh, ci fii nga xam te moom moo di jumaay euh, ji nga xam nag mu nekk fii ci euh, rek Colobane di Masalikul Jinaan bi nga xamante ni nag tey jii weexu koor wi nga xamante ni ñu ngi ci nekkoon ci diirub fanweeri fan daanaka ngir rek li nga xam moom moo di màggal bokk ci ponk yi nga xamante ni ci ponk lislaam la bokk lu nekk bés boo xamante ni tey jii mooy wane na njeexantal la ñëpp ñëw ñëw ngir euh, julli lii di Aïdul Fitr di weexu euh, julli Korité gi ku nekk xam ne ni euh, ginaaw bi nga xamante ne contexte bu garaw am na bu doy waar di la l'apparition de cette pandémie di coronavirus bi nga xamante ni tey jii moo waral daanaka lu ci bëri ci yenn mas masjiyaat yi ak yenn ci jumaa yi daanaka tijjiwuñu Euh, wara it fii ci Massalikul Jinaan mbooloo mu takku la ñu fi nemeeku euh, ci fi nga xam te moom moo di néegu yàlla sunu borom bi lee euh, ndax lu ko dalee fële nga xam te moom moo di rek ca HLM ba nga xamante yaa ngi ñëw fii lay ci Colobane ba li ko wër nga lépp ci jumaa ji mbooloo mu takku ñoo fi nekk ñëpp ngir ñëw itamit def julli gi nga xamante ni naam sunna la waaye tamit nekk na julli gi nga xamante ni mandarga la ci ponk l'islam bi julli la boo xamante ni bokk na ci li nga xamante ni moom la ñu gën a ràññeekle ci njeexantalu weeru waral tey jii ci Masaalikul Jinaan mbooloo mu takkoo ngi fi jumaa ji nag julli gi dooragul wante ku nekk xam ne ne kilifa yu bari dana fi ñëw euh, julli euh, ku xam ne ne laata rek sax ñu doon jëlee lii di poste Elimane Diourine di euh, poste du premier ministre moom bi ko nekkoon Mahammed Boun Abdallah Dionne fii nga xam te moom moo di Masaalikul naan fi la daan amee léegi julleem xamaguñ nag ren ndax dana ñëw wala déet dina am ay kilifa yu diine yu bëri daal yoo xamante ni kilifay kilifa kilifay aada kilifay diine yoo xamante ni dina ñëw fii si julli jumaa ji nga xamante ni du yàgg dara daañ ko door ngir julli lii di euh, aydul fitri bi di julli korite gi incha allahu rabbi lépp loo xamante ni euh, moom lañ fiy taataane ci bërëb bu sell bile euh, daañ leen ko tegtal incha allahu rabbi moo xam ci ay réaction yu jóge ci ñi nga xam ci ñoom ñoo di way kilifay diine yi way kilifay aada yi taalibe yi ba ci ñoom ndax kenn ku ci nekk ñëw nañ Eh, ci barab bi waaye tamit ñi nga xam te ñoom ñoo di rek eh, ñii di kilifa yi diine yi tamit daañ leen taataan lépp lu luñ fi taataan ci ay réaction ku nekk xam ne ne eh, boo déggee ñu wax taalibe yi ndax ku nekk xam ne ne ñi ngi ci contexte bu doy waar bu di coronavirus bi waral les mesures d'hygiène yi nga xamante ni kilifa yi nekk ci kër docteur ñoom ka digtal nañ ko ginaaw bi njiitu réew mi joxe woon itamit dogal mbooleem ñi nga xamante kat ñu ngi doon sàkku dem ci barab yi jaamukaay yàlla yi moo xam ci julli yi wala ci jàngu bi ni war nañ koo mën a door ndem euh, soob na leen waral nag taalibe yi ginnaaw waa kër docteur ci mesure de jeunes yi nga xamante ni joxe nañ ko ñoom ñëpp sàmmonte nañ ko moom ku rekk xool nañ ne lii di distanciation sociale respecté nañ ko maanaam soriante gi ci benn mètre lu ndaw ndaw ci xàll li nga xam te moom moo di takk ay masque port du masque obligatoire bi nga xam ne ministre de moo ko digle woon ku nekk xam ne ne koo ci teg bët mi ngi sol masque lu jëm ci li nga moom moo di euh, gel hydro euh, hydroalcoolique bi tamit naka noonee dara demul mu des ndax it euh, ñi nga xam te ñoom ñoo di dispositif bu am solo bi ñu def ci jumaa ji ñoo ko yore ngir képp koo xam te war ngaa jàll rek ñu defal la ko ngir désinfecter li nga xam moom moo di say loxo pour rek mayt ni ko ci mbas mi kon toutes les euh, mesures idoines sont prises pour également un bon déroulement de cette prière appelée communément l'Aïd el-Fitr euh, qui marque la fin de ce mois béni de Ramadan euh, du Shahur Ramadan weeru koor mu nekk loo xamante ni nag ñu bëri euh, dinañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax ci mesure d'hygiène yooyu ngir it li nga xam te moom lañ fi ñaane mu nekk loo xam dina fulu dina ruus ngir mbooloo julli di mbokk taal bi yëpp mën cee jëriñu mbas mi yàlla jëlee ko fii nga xam te moom moo di Sénégal jële ko ci àdduna bi jëlee ko fépp rek dara bañ fee taxawaalooti lii sonal doomu aadama kon dañuy ànd ak euh, cameraman euh, kii di Mourtala mi nga xamante ni nag macha allah mi ngi def liggéey bu am solo Mourtala Gaye ngir dugg ji ci biti ak ci fépp foo xamante kilifa diine yaa ngi fi ngir jël seen réaction ngir it dégtal leen ko ci seen chaîne de télévision bi nga xam te ni ngi ci YouTube bi di Tawfekh Production di leen jox événement yi à temps réel mais également dina ko jox ci anam bu mu gën a sellee kon ñu dem ci kanam tuuti dellusiwaat. ngeen jot ngeen mën a jot moo leen a